li ci yenn yi ñu àndi ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Cheikh Agibou Soumaré ma ñu yendal démb ca police ba mu mujjee cib garde l'observateur mi ngi ñuy wax li mu wax enquêteur ya ko woolu woon ubbil yéenekaay bi ginnaaw lettre ouverte bi mu bindoon ba doon ca laaj ay laaj yoon di woon ci réew mi taxoon procureur de la république Abdou Karim Diop santoon waa sûreté urbaine ñu woolu ko ngir mu wax leen li mu wax mooy lan ak fu mu ko jëlee premier ministre Sénégal ba woon di Cheikh Agibou Sankare ak i waaye daanaka laaj bu ñu ko laaj rek mu delloo leen ko nee na leen affirmé wu ma dara confirmé wu ma dara te it waxuma benn yoon waxi preuve ay laaj la samp en tant que ku jiite ab mouvement politique toog di déglu président de république mu tontu ci libération nañu ca foofee fa la ko jàpp démb moom Cheikh Agibou Soumaré sonn ci benn yoon mu di dama samp ay laaj toog di xaar ñu gindi ma ci tuumaalu ma kenn te it tudduma kenn kenn ki di Cheikh Agibou Soumaré libération mi ngi ñuy fàttali ne ca police fa la fanaan démb tubaab ni ñu ci xët mu njëkku libération moom Cheikh Agibou bu dee fu mu ko wékkoontu fu dëgër na ko jàll ci leneen anki dina kay am moo ko ci mën a génne auditionné nañu ko démb ci sûreté urbaine garde à vue ko te su moytuwul danañ ko gi wute na lool ak guddi yi mu xam moom la dundu démb Le Quotidien nañu Cheikh Agibou Soumaré laaj ya mu doon laaj am na tontu la démb nee na enquêteurs yi moom Cheikh Agibou Soumaré tuumaalul kenn te dëggalul dara njoxtam la doon dem mi ñu dem ci xët mu njëkk suut soi mi dem ci wax ji ba dañuy wax ne premier ministre ba woon di Cheikh Hadjibou Soumaré àdduna mi ngi a tukki nekk garde à vue ci la mujj ginnaaw bu ñu ko dégloo bu nuppi delluwaatul këram ñu dellu ci l'observateur fekk fa kenn ci ewakam di maître Mame Adama Gueye nee na fa ba fi nekk ni amul benn infraction bu ñu wax ne moom la ñu koy toppee la tribune bind ne Cheikh Hadjibou Soumaré def na wax waxee démb nit ko amul woon benn argument la ñu gis démb mu doon jano ak enquêteurs yi le témoigne mi xëy ak ñun ci li Cheikh Hadjibou Soumaré tontu enquêteurs yu sûreté urbaine yi mi ngi ñuy li nekk ci lettre bi moo ko wax li indi coow li di xaalis bu toll ci juróom-ñaari milliards yu teg juróom-ñeenti téeméeri millions li mu doon laaj ndax président Macky Sall da ko may benn kilifa bu jóge woon France ñëw ci Sénégal Walf Quotidien ci la xëy ba dañuy wax ne ay wali sa xaalis ñuy duy ci réew mi di ko jox ay kilifa yu ñëw ci réew mi loolee yàgg na Sénégal dafa mel ne aada ci réew mi yéenekaay bi dañu fàttali maletu genn wàllu milliard bi fi Abdoulaye Wade duyaloon Alex Segura 2009 2024 waa kër Abdoulaye Wade di waa parti démocratique Sénégal jigéen ña ca nekk journal La Tribune mi ngi ñuy wax ne tànn nañu Karim Wade investir ko def ko seen mbër ci élection présidentielle yu eh, keroog la woon mars ba ñuy màggal journée de la soxna Waré Sarr ak ñi mu àndal woote woonum ndaje ca permanence su parti démocratique ci VDN bi jigéeni parti bi bàyyee ko woon ci mboolem département mujj soppali ko doonub congrès fala madame Waré Sarr ak ñi mu àndal investir Karim Wade dëggal ne mooy doon seen candidat ci élection présidentielle jigéen ñi ak seen bés boobee ñu doon màggal ci réew mi la tribune mi ngi ñu wax ci xëtamu njëkk keneen ku ca ràññee ko journal bi nee nañu mooy directeur général bu COUD Maguette Sène mi jiite mairie bu Malicounda keroog ba jigéeni département yu Mbour bi dajee ca Somone ngir doon feete 8 mars fa la jëlee engagement moom Maguette Sène ne dina gunge jigéeni Mbour yi ci wàllu ba ñu mën am seen autonomisation mën a moom seen bopp mënal seen bopp bopp yéene kaay bu waaye xëy fekk fa waay yeewi askan yu bokk ci ñoom l'observateur mi bind ne waaye yeewi li ñu fas yéene mooy gouverner république bi nee nañu talaata jii di ñëw fukki fan ak ñeent ci weeru mars méga meeting la ñu woote ci ëllëg sa di àllarba fukki fan ak juróom ci weeru mars ñu amal ay doxi ñaxtu di marche ci ñeen fukki département ak juróom benn yi ci Sénégal journal L'Info duñu xamal ne démb lañu ko xam ñoom leader yu yeewi askan ba ñuy amal ab janook taskatu xabaar yi kàdduy Ousmane Sonko ci autorisation am ko ak ñàkk ko la ñu yamale maa ngi waxit képp koo xam ne yaa ngi may déglu jox naa la ndigal ngir suñu yeggee ci bés ba nga wàcc ci mbedd mi mobilisé wàcc ci mbedd mi amal sab marche bu fekkee dañoo bëgg ku jàpp nu ñëw jàpp ma man mi joxe ndigal li vox populi nañu fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom ci weeru mars waaye yeewi li ñu bëgg moo di jaxal mbedd mi journal bi duñu fàttali ne ci ëllëg sa di yem ak fukki fan ak juróom benn ci weeru